sa bu que gëna dijj basam mo gëna gudd yow lool xam nga ko sax yow do fo e ngi do taf xam nga sa bu parce gëna dijj mo gëna gudd xam nga lool yow fofu ni tan na defal waa ak app bi do mo li nga li nga tuddul yow dong moo tax dem yoon su ma ko bëggee dama ko man ndax li nga tuddul yow dong nga tax waaw ma ne kee bëgg naa la waaye yow tam naa ni ko bëgg koy nga ko bëgg koy nga xam nga ni fi toll yow leer na sama koy ma man bu sëñ moor xam nga loolu yow mu leer na la nañ tax nga sama koy bi fi sama koy bi di fi ko dana de moo tax bay bañ gaaw sax tàggoo mu ni moom xam naa sa sa data bi ubbeeku na sa data bi ubbeeku na fi mu nii moom doon wax loolu bi bëgg lay nga kulay lay nga ku bëgg koy mecc sa lëf li nga xamna ku bëgg ku lay door bu baax nga xamna yow xamna naa la yoroon dama la katt mu ko dama lay katt katt katt katt katt ba do mën mëna dox daaw ak ren bo ma gëna bëgg nekk ni ci daaw ak ni si ren kañ nga ma gëna a ay ko yàq xarit tey damay déglu rek damay déglu damay déglu dama ne ñun sëñ Tuubaa doon wër newul ci yow barke bor ay eh, eh, moo dama lay tóor de sëñ Tuubaa lañ doon wër sëñ Tuubaa ci yow yow jëmmi seytaane moo ne ci yow ay jinne yu bon seytaane moo ne ci yow xam nañ ko ñun suñu yëngu ci loolu duñu ay jaayir man fa ma ba ay jinne ba léegi ña nga fa ca daara ja lu leer dañoo ñëwoon ngir jébbalu ngir jëmmi sëñ Tuubaa lépp luñ fi def nag ma ngi noonu mais noonu la leer ni bis ni ki tay ñi ñi nga gis ak ñi nga gisul jebet ñu jibul woon dañuy sét ñeneen ño xamni ne nañ nañu ngir jëmmi sëñ Tuubaa yow da nga mëna yobbu yóbbu kenn fenn sama sëriñ direct mo tuma sëriñ sax tuma dama fenn bi ma la dem barab ba tuubal sëñ Tuubaa ngir liñ ko doon dendalal ngay woote nan sëñ Tuubaa bu doon ñew fi nangam ñu la koy jiñ ngay sëgg di am lo def yow da nga wor ay nit ñi nga wor xamoo leen sax ah, da nga may déglu da nga may déglu xeetu njibaar yooyu ak yoy da nga koy teg ci suuf Ousmane Ndiabar da may déglu. Ousmane Ousmane Ndiabar dama ne Ndiabar rek. déedéet déglu ma déedéet da nga may déglu. parce que eh, borom tuba foo ma déglu. Mm, mm, mm, foo ma déglu dana dépassé loolu de. parce <laughs> que borom tuba bi may ñëw dama calme da nga may déglu. xam nga tax nga may déglu. eh Xaadim xam nga tax da nga may déglu da ngaa wor adduna. ñu lay tasaaree ci réseaux sociaux yi ku nekk di def naka su dul noonu. naka yow li nga nekk dara du ci dëgg Sëñ tubaa kenn la. Amadou yow photo yi rek bon na laa toroxal xasida yi ñu seetuñu kenn ku dul sëñ Tuubaa na la leer ni wallaahi la nga ji da nga torox bëccëgu ndaraw kam man maa la ko wax ay gor xoolal sëñ Abdoulaye ay prêt xaalis yow xaalis lañ koy jàmm ay douze ay millions ay millions ak ki nga taxawal dara si àdduna lu dugal nga teg leen luñ dugal nga def. soo bëggee suturaal sa bopp mooy woote gi moom moom dama la koy wax woote gi na nga ko teg suuf nga xool noo def. wa ilaa boo ko deful wallaahi la gis nga lii nga def am nañ preuve c'est de xoolal xoolal dix ans wala lu ko ëpp mën nga ko cee jëlee. ñu jàng nañ lii nga ma def lii nga ma def mënoon na de prison wala ko alamaan la lépp nga fi def tentative faux et usage de faux jàngale duñu ay jaayir de wallaahi la nga da ngay sa bopp rek xam noo def soo ko defulee wallaahi la nga xoolal la ngay woote ay bisu xaalis daal yëpp tegal ci suuf ñoo daan yëkkati suñu alal di ci def ñun suñ tubaab ñu bëgg moo tax mu war ñu lii buñ wootee soo ko jéemee rek dinañ weer xool journaliste yi xaalis xam diggante bàkkee kii xam nañ ko de weer bopp de tegal ci suuf bul woote man wax man daal nga xam ne dis ni ki tey ak ñi nga ko séqal jeex na abadan loolu moo ñu fay leneen man pare naa si. sëñ Moustapha dégg naa la wax. man bu ma wax sëñ Moustapha ma wax sëñ Moustapha la ma tudde. sëñ bi li xam laa bëgg xam man lii lu ko fi jar laa bëgg xam loolu ko xam man. donc sëñ Cheikh naa ko da nga kaa war sëñ naa li nga tax joxutu loon benn cër. bu ñëwee am nga loon xam ndax sa problème yi moo ko toog ay at di xaar sama bopp gëm sama bopp xam li ma doon xam fi ma yare xam famille bi ma bokk nga ne ma déedéet ñëwal nga bon ànd ak man bon di ko nëbb yow da nga maa bëggoon sànq teg ma si yoonu mbon te mosuma xam loolu famille bu baax laa bokk mosoo leen a gis fii ñu benn sama papa moo fi teg tànk ndax lan bëggoon xam man si ma nekk ndax si famille bu baax laa bokk ñu yar ma fañ ma war a yare gëmloo ma sama bopp xam nit ñi mu war a mel valeur yi mu war am yëpp ñu def ko si man sama borom ko tukki ay at wóolu ma ak xam fi ma jëlee moo tax mu bàyyi ma man kese ma nekk di am si man confiance nga ne déedéet confiance boobu dama koy dindi ba mu set damay ñëw nañ nañ njaalo ñu koy nëbb di ma def loolu bon njaalo bi ma bëgg doon ma bu xëcc man su ma njaaloon pare sama doom bi may wax ak lu may yàlla ak lu may wax sama kër gi nga xam ne jina ma teraanga mu ñëw di ko seqaat ak ma xam ne yow seq naa ka yow kon lan la laay wax man yàlla samay waajur lan laa leen di wax lan laa leen di parce que def labaluñ ma loo xam ne dama leen nar a fayee lu bon parce que ndax leen damaa yar fañ ma war a yaree jox ma éducation bu baax xam samay valeur ma xam samay valeur yow nga ne déedéet ma ñëw sa kër gii say jabar di ma torturer di ma sonal nga yàq sama der sëñ Mor dafa abandonné dafa takk beneen jabar dafa nekk si ndëkk loolu yëpp dara amu si ndax lan sëñ Mor topp gëm-gëmam ak bëgg-bëgg la bëgg la ba def la sëriñ Tuubaa def la papaam def la yaayam ma bëgg lu neex sama borom kër ñëw toogal ko fi di ko guddi di ko bëgg li ma ko ma bëggoon li ko neex nag moom la ma yàlla fayee parce que sama xol la ma yàlla fay